moo di ay avocat wam peut-être que ñu daal di génn bu ñu génnee nañ ci daal àddu wante nag euh, laal la ñu gis voilà cortège bi mooy delluwaat euh, waaye te it moom moo indi woon euh, Bougane tey si suba mhm. donc ñu ngi nee di dellu mhm. di ñibbi kon loolu mun na nekk rek ni ko dafay firndeel ni rek daan nañ koy daal di place en garde à vue léegi nag wax ji mooy est-ce que lay dem wala conk lay dem mhm. mais en tout cas ci lu ñu leer ñu leen mën a wax rek mooy Bougane placé nañu ko garde à actuellement et que ñu ngi xaar avocat yi génn wax ñu fan lay passé euh, première nuit wam euh, dàpp bi ñu ko placé garde à mu ngi noonu moom Bougane waxoon na ne que euh, pare na lépp ndax ba muy gis nañ ko nag ci anam bi nga xam ne moom la ñëwee fii ak amoon confiance loolu ci boppam booxante yi nekk pare na ndax nag indaale na li nga xamante ne si nag moo di saaga buñ ko téyee fii dafay toog waaye buñ ko bàyyee mu ñibbi tey nag mu mel daanañ nekk daal di en garde à vue bi nga xamante ne si. da jàpp ne bi na ñëw fii wax si la jugoon mu mel sax nag ñoom ñooñee actuellement ñu ngi nii rangé waat rek ngir rek gis ñu xam ne moo di bugaan donc loolu day firndeel ni garde à nga xamante ne si nag ñoo di voilà ñoo di ay jegeñaale wala ay avocat bu ñu ñëwee tamit ki nga xam ne bu ñëwee mën na jënoo ak ñi nga xamante ne si nag moo di taskatu xibaar yi wax ñu rek euh, li nga xamante ne si nag moo di audition bi naka rek lañ ko daal di ak li nga xamante si moom lañu daal di euh, ki nga xamante si moo di Bougane mu nekk wax yi mi ngi raisonné lay bàyyi ak ñoom nga leen question nañu defaru monsieur Babacar Gueye également Samuel Sarr présent. fi nga taxaw baaxul fi nga taxaw Babacar monsieur. c'est bon. ñëwal tuuti da nga ñëw tuuti da nga ñëw tuuti. non non c'est Babacar qui parle c'est Babacar mooy ñëw. c'est bon bu leen ma. pardon xaar leen yéen ñi dafa bëri ñeenu ñu gis. nañ ñeenu s'il vous plaît nank rek ñun ñëpp danañ danañ kii. voilà ñii mënuñoo gis fi ñu toll nii sàmm sa kàddu. yow am ki moo xaaral bala ñoo démarrer faw ñuy gis ba pare faw ñuy gis ba pare.

ngeen dellu ñii gis ba pare xaar leen wuyu am xaar leen ñii gis ba pare yéenay dellu ñii dellu nii tuuti dañ xaar tuuti dañ xaar wuyu ma xalal masele Mouhamed Daouda xol ki bi bàyyi waaw ñu ngi leen di fay waaw c'est Mouhamed Lamine Massali président du parti Union pour une nouvelle République li ñu constaté Sénégal askanu lëm gis na ko man li may posé question mooy dañ ñu digoon ab projet gisuñu tous mooy demander la DIC ak cybercriminalité nañ ñu waral projet bi nga xamante ne moom la ñu digoon askanu Sénégal moo gën li ñuy def bu ñu jàppee ne mun nañu intimider nit ñi wala ñu xoqatal nit ñi bu yaboon nañu yokku kaso yi xam ne ñun ñëpp danañu yóbbu prison lii Ousmane Sonko lu ne wax na ko. magistrat yi lu ne wax na ko police lu ne wax na ko mari lu ne wax na ko les institutions du senegal am na intimidation yoo xam ne nag ça ne passera pas et nous ferons face du ñu woote nag mortal combat du ñu taal dëkk bi waaye lu ñu yoon may incha allah rabi dinañ ko teg te dinañ jàmmaarloog moom bu jàppaaree ne day jël di utiliser la justice police ak mari pour noot ñu billaahi wal kitaab yi day nax boppam dina xam ne nag Sénégal du titre foncier wu benn doomu adama lum su bañu bañ ñu ko te incha allah rabi dinañ jàmmaarloo moom si kàttan yàlla suñu borom. waaye sëñ bi sëñ bi nañ leen arrêté ñun duñu ay xale ay magum jëmm lañu nous savons pertinemment comment fonctionne un état nous avons exercé le état pendant vingt quatre ans na ñu nan lay nguur di doxee xam nañ ko bu baax a baax ah ñu arrêté di fooye xelu nit ñi moom amul lu mu fi waxul magistrat yi. amul lu mu fi waxul police amul lu mu fi waxul gendarmerie ah fii nag dëkku yoon la nañu jaarale mbiri si yoon mais li ñu def di persécuter nit ñi parce que xam nañu ne perte nañu le combat de l'opinion ba pare parce que dañoo nax askan bi gëmloo leen lu amul askanu senegal gis ko askanu senegal teg seen bopp fu mu toll ñun ñëpp préparé nañ suñu bagage pour dem kaso loolu la ñu bëgg danañ leen ko yombalal si kàttan Yàlla suñu borom mais li ñu bëgg a teg dëkk bi muy instaurer fi la dictature billahi wal kitaabi ça ne passera pas dans ce pays Sonko na xam ne Sénégal du titre foncier wu papam du titre foncier wu yaayam man Massaly nag maay wax ak bu fekkee da nga jàpp ne yaa moom Sénégal barki Cheikhul Khadim da nga xam ne yow Sénégal gii du sa titre foncier amul may ñaan may demandé nag magistrat yi nga xamante ne xam naa leen xam naa seen ngor xam naa seen dëggu xam naa seen bëgg Sénégal bu ñu tilmal seen i gor bu ñu tilmal seen der parce que xam naa ne ay nit ñu jub ngeen xam naa ay nit ñu bëgg Sénégal ngeen ki taxawoon démb tuumal leen waru leen nangu tey mu leen di teg yéen nii képp kuy nit bëgg senegal war na ko bañ réew mi nag Ousmane Sonko moomu ko réew mi du sa titre foncier papa du sa titre foncier yaay da nga koo bokkal askanu Sénégal te boo jàppee ne lii ngay def da nga noot askan bi barki Cheikhul Karim di nga dox sa bopp te xam nga ne le 17 novembre le 17 si kattanu yàlla Sénégal dinañ la xam ne lañ leen digoon amul nga bugg a persécuter nit ñi pour ni ñi bañ a ñun même bu ñu campagne sénégalais yi dinañu campagne si kàttan yàlla suñu borom te nag may lancer un appel solennel à toute la jeunesse sénégalaise y compris nos papas et nos leen ngeen taxaw lii ñàkk si ñax ba la jëm lii ñàkk si ñax ba la jëm dinañu dem ba tarixa yi nañ leen fi jële may wax na ngeen takku taxaw jël seen i carte le 17 novembre ngeen sanctionné leen ñëw ñu instaurer la paix et la démocratie dans ce pays. maa ngi leen di gërëm. monsieur monsieur monsieur